guddi fukkeel ak juróom ñett ga ku ca julli fukki bu ci ne faatiya ak shabbi hisma ak qul yaa ayyuhal kaafiroona ak qul huwallaahu lu ci ne benn yoon mel na ni ku moom adduna sépp ak li ci biiram ba noppi dundale ko ci yoonu yàlla te araf wu ci ne dees na ko ca tabaxal dëkk bu rëy ci àjjana mel na ni it ku jaamu yàlla juróom ñaar fukki at yoo xam ne da ko yendoo woor di fanaanee julli mel na ni itam ku jàng alquran téeméeri yoon aj téeméeri yoon umra téeméeri yoon te dees na ko ca bindal tuyaaba joo xam ne yàlla rek moo xam na mu toll te balaa génn àdduna dana gis këram ca àjjana du gis lu mu ragal wala lu koy jàqloo ba ba muy tàbbi àjjana